Eh, gars yi finalement mbir mi muy ngi bu baax a baax kon ma leen ko annoncé woon kooku di Cancelo war na mën a dem foofee ca FC Barcelone lii gën a yombal dem bi nag mooy kookee di Ousmane baax saa dugg na ci mbir yi Cancelo nangu naa dem salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ ci nekk seen ak seen sant nouvelle bi wàcc yéen yéen catalan yi mooy que Barça daal am na accord ak Cancelo muy joueur portugais bi nga xam ne annoncé woon naa ne nii y a des mois ci ginnaaw que ni Barça mu ngi ci ay mbiram te dafa nar a dem mais nag li ko gën a yombal mooy Ousmane Dembélé Cancelo accepté na dem foofee ca euh, Barça li des mooy que mook Manchester City ñoo des ci mbir pour ngeen xamee ko noonu Ousmane Dembélé nag la ñuy xaar mu jóge foofee ca euh, FC Barcelone dem rejoindre Paris Saint-Germain nga xam ne lépp leer na foofee dem rek moo ci des après ñu soog officialiser ko kii di Cancelo comme latéral droite waaye joueur la boo xam ne nii euh, joueur bu ñu soxlaa ci couloir bi la mën nañ koy joué loo comme excentré di ko football loo comme latéral droite le temps que Barça di lijjantiwaat beneen joueur de couloir boo xam ne nii euh, top mondial soit ay João Félix wala ay Bernardo Silva en tout baax son ngeen xamee ko noonu ci départ Ousmane Dembélé daanaka day dem loolu moom amatul sikki sàkk lépp leer na ba pare kon nag Cancelo xam leen euh, yi mbir mi bu leeree diggante Barça ak City rek mbir mi leer na jeex na tak nag Cancelo am na euh, accord ak Barça ba pare euh, pour ngeen xamee ko noonu ba tey nag ci PSG googu nga xam ne daanaka dafay jënd Ousmane Dembélé jëlee ko foofee ci FC Barcelone foofu leer nañ ba pare waaye beneen joueur bi mu boole moom la wax Ramos nekk foofee foofee ca Portugal ci club bi naan euh, Benfica euh, Gonçalo Ramos moom nag jamono ji euh, mën naa di sax moom moo doon jour bi nga xam ne Portugal contre ki ñu naan Espagne ak Portugal ak ci coupe du monde bi mën naa ne wane na fa boppam bu baax a baax baax mu ngi noonu mu doon joueur boo xam ne nag déggoo nañ Benfica ak Benfica ak kooku di Paris Saint-Germain ci quatre-vingts millions d'euros dafa war a ba ngeen xamee ko noonu pour joueur portugais boobee ñu naan ko Gonçalo Ramos ah, mu ngi noonu waaye te Ajax Amsterdam signé na le gardien bi boobee nekk foofee ci Eintracht Francfort ñu ko. Euh, Dian Ramad moom nag c'est officiel nekk na joueur gardien de but Ajax Chelsea nag moom it mu ngi ci yoonu euh, signé le euh, gardien de but boobee nekk foofee ca Brighton ñu naan ko Robert Sanchez ci vingt millions d'euros wala ba ba diggante daal vingt millions d'euros ba vingt cinq vingt cinq millions d'euros daal lan ko nar a jëndee pour joueur boobee Caicedo nag mën naa ni Chelsea mu ngi ci ay mbiram ba léegi di ko accélérer bu baax a baax pour mu war a mën a ñëw jàppale leen Slow nii naa moom nag Chelsea da ko nar a aale mu ngi noonu ngeen xamee ko noonu muy noonee mu doon euh, euh, kii li euh, Al Ahly nekk club Arabie Saoudite jamono ji dugg na ci mbiru kookee di caissier mu ngi koy jéem a convaincre ci salaire bu tegu ci temps pour caissier dem rejoindre leen mais caissier ba léegi waxagul dara en tout cas Xavi pare na pour jaay caissier moom loolu rek la bëgg. mu jóge fa nag actuellement du ne boolee ko ci projet mais bu ku tegoon xaalis wextal dañ koy jaay nag bëgg nañoo jënd yeneen jour loolu la Barça bëgg kii di Amrabat rabat nag Arabie Saoudite nag ñu ngi ko bëgg mais moom dafa préféré euh, toog Europe moom daal Manchester United rek la gis jamono ji bëgg naa jóge foofe ca Fiorentina mais fépp fu muy mënti dem fu dul Manchester euh, baax na loolu la kookee di euh, Amrabat le Marocain bëgg ngeen xamee ko noonu Houston Trusty moom nag rejoint na Sheffield United cinq millions d'euros mu ngi jóge foofee ca Arsenal ngeen xamee ko noonu le joueur boobee ñu naan Denis Zakaria Monaco dóor na benn offre ngir war koo mën a jëlee foofee ci Juventus Turin indi ko ci clubam muy noonu West Ham nag dugg na ci mbiri mais Monaco am na confiance que ni moo nar a mujjee ci euh, jëmm joojee ngeen xamee ko noonu Juventus Turin nag moom nag bàyyiwul kes yi ak yeneen club Premier League malgré club saoudien yi di Al Ahli bëgg nañ ko te teg teg nañ ay mbir yoo xam ne ñu ngi koy jéem a convaincre ñu ngi xaar nag Kessié ci nan la nar a mu muy noonee kookee di Tanguy Ndombele nag mën naa ni jamono ji bi ca milieu terrain Tottenham bi euh, boolewuñu ko ci plan yi ba tax na Galatasaray dugg na ci mbiri ngir war ko mën a jënd warul metti nag ngir war koo mën a jënd nag Tottenham daal jaay ko rek la bëgg de même que Fred nag euh, Galatasaray dugg na ci mbiri mais ñu ngi xaar nan lay demeek naka la ba xam dina dem ou pas lépp lu ci mënti am daal di ngeen ci xam dara mu ngi noonee euh, le jour boobee ñu naan ko Alejo Vélez nag jamono ji déggoo na ak kookee Tottenham pour mu war faa mën a rejoindre nekk fa li des kay mooy que club moom rek moo ci des pour kookee di euh, Venise ngeen xamee ko noonu mu ngi noonee gars yi euh, loolu moo nekkoon xibaar gi tey ci 3 euh, août ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nag abonné ko suñu chaîne YouTube c'est simple dugal suñu bio TikTok nga bës logo YouTube bi mu yóbbu la directement ci chaîne YouTube bi nga abonné foofu activé cloche di seetaan foofu vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def jàmm ci yéen gaa yi képp koo xam ne nag defagoo ko kon nag daw leen massivement ngeen def ko ci njëkk ak teranga yàlla na seen jàmm yàgg jaajëf sama gaay